brigade bi ay picc lañu leen di tudde mais fekk ay soldat lañu ci sécurité bi lañu bokk moo tax mu yónnee leen tayran ababil termihim bi xijaratin min sijil wax leen ñoom malaaka yi ñu jël ban bi ñu bindee nit defar ci ay munition jox ko picc yooyu te munition bu ci ne turu boroom nga ca donc ñu écrasé ñi àndoon ak Abraha ak léppam mais lu tax bi Hajjaaj jëlee décision moom itam pour màbb kaaba gi te màbb na ko lu tax yàlla puniru ko lu tax yàlla détruiru ko ñu ni lenn dong moo ko may chance mooy taawil taawil bi mooy lan am na ñu dégg ni ku dugg ci biir kaaba gi raw nga ak lu mën a def déli boo mën a def raw nga ba noppi xajjaaj nag def tawil yëg ni bu ñu bàyyee loolu mu wéy ku jóg di nga tooñ dem làqu ji ci kaaba gi donc il fallait que mu màbb kaaba gi pour wan ñooñu ni leen loi moo fi bàyyi kaaba gi kon ku violer loi bi ñu màbb kaaba gi parce que dañ koy tabaxaat rek waaw donc taawil boobu foofu mu ko wéer li mu tëdd ci jawhar moo tax yàlla pardonné ko waaw mooy façon bi mu waxe xam nga sëriñ Cheikh waxam dof waru ko di déglu parce que waxuma la li mu li mu xam mais audace am parce que nitu yàlla yi dëgg-dëgg ci seen audace nga koy xamee waaye li mu wax ni ku yaakaar yonent bi bu la neexee nga lekk riba ndax jamono bi jamono riba la boo nee doo ko lekk dinga nga torox mais ci taawil mu ni ci Maodo la jóge moo waxoon ad daruratu tubixu lmaxdurat boo naree loru may nañu la li ñu tere nga jëfandikoo ko ndax nga baña a loru waaw mu ni moo tax Maodo yu bari daan na ci autoriser nit teg ko ci xadiisu yonent bi waaw loolu mooy tax budul taawil jaxas mi dafay bare même am matière politik boo teeyul rekk mën nga jaxase yu bokkul maanaam góor gi doon wax nii réew mi nañ ko sang yaakaar naa ci place de la nation wax naa leen ci tawil fi ñu mën a teg wax bi ba jariñoo ko te moo di ni nit di amee janaaba noonu la politique di amee janaaba ci kaw bu fekkee ne ay xabiisaat ak i xabiisiin ak i xabiisuun ak i xabiisaat ñoo yore politique bi fokk politique ba dafay am janaaba te bu Senghor am na ko bu Abdou Diouf am na ko bu Ablaye Wade am na ko bu Macky Sall on n'en parle même pas donc il fallait que ñu sang réew mi ci janaaba ba tayyibaat ak tayyibiina yi ak tayyibuuna yeeg tayyibaat yi yor yëf yi moo ñu tax a dugg ci biir élection ñun ñu jël pur ma jox ko sama mbokk mii di Aline Mamadou Dia mu doxal ca la mu ca war a doxal yépp ñi ko bokkal yépp jàpp ca ku ne wa tabarakallahu ba ci capitaine en dernière minute mënu ba duma bëgg a dem fekk jaali ndax pour ñu gën ko appuyer ma ni ko farata la ca la demee rejoindre leen moo tax nag sang réew ndox du ko def méthode la mais métode bi aussi bu ci kaddu yàlla duggul jarul nga ciy sonn waaw moo tax bi ñu fi jógee góor gi wéy ji boroomam gis naa nit ñu bari di ci wax ku ne naan waaw léegi kon nu ñuy def pour sang réew mi ma dégg Oustaz Alioune Sall ni dem leen ci Serigne Moustapha mais bu ñu ñëwoon ci manit duma ko sang parce que ki ko war a sang mooy ki ko tudd te dem na xam nga sa kilifa dina wax kàddu nga fas yéene bu kàddu ga guddee àll it du fa fanaan loolu moo ñuy dal ñun ci sunu kilifa kàddoom na na guddee àll waaye du fa fanaan mu ngi fi ba tey nag dama dugg oto dugg ak ay bokki responsable lu daayira bi ma jóge sama hôtel Paris jëm aéroport Charles de Gaulle pour ñibbi si Dakar ci biir oto bi kenn ci mbokk responsable yi ni ma dama la bëggoon yóbbante ci góor gi ma ne ko lu mel nan mu ni ma dama dégg ñu ni Sëriñ Babacar dafa waxoon ni ëllëg lu mu xat-xat am na ñoo xam ni dina layoog ñoom ci kanamu Maodo mbokk mi ni ma tam man dégg naa sama baay ci la bokkoon en tant que nag te gëwma lu dul sayid cheikh ma bëggoon nga ñaanal ma ko pour ñu pardonner sama baay ma ne ko incha allah bu ma ko gisee wax ko sa yóbbante ma ñibbisee Sénégal am audience ak góor gi ma wax ko yóbbante bi ak li mbokk mi ñaan mu ni tekk ba ci yàgg mu ni ma mu sëf ma ko labbayka mu ni ma du yomb nag mu ni ma ndax Sëriñ Babacar mi ko wax nitu yàlla biir la mu ni ma ba ca tegu itam mooy dem na barsax ba noppi te mënul dem barsax may jël décision bu toll noonu te né négocié ko ak moom kon nag jarul mu tas yaakaaram waaye xanaa bu ma gisee sëriñ Babacar ma négocié ak moom pour wax la waxu xaqiqa du lu ñuy kafe waaw moo tax mag ñi lépp lu ñu wax boo ca génnee dañuy am souci ndax ñeewante gañ lay ñeewante ndax décision bi lay condamné du jóge ci ñoom feneen lay jóge te bu jul sañoon duñ la condamné te trois jours rekk lañ lay may tax ñoom ci seen bopp sax daf leen di dal am na ci bu nga xam ne bi mu jëlee décision bi gannaaw sëriñ Babacar la mais comme négocié ko ak moom ba def ko ba noppi mu jur la mu jur dafa mujj dem ci raw du sëriñ Babacar pour demander le pardon fasfax bi fadlika waafu anni gaflati wa gaflati bi sharabiha almasmuumi anta alkarimu wa faxru kulli karimin wa man illaimu ladayhi charru laimi xaalaftu amraka walxilaafu jahannamu wa naqadtu rayaka naqda kulli xakimi fa wajadtuhu waxyan li kulli muwafaqin wa wajadtuhu xukman li alimi dem ca bàmmeel ba pour demander pardon waaw loolu mooy tax xaqiqa dafay yombul sunu mbokk mile sëriñ Moro Njaay te yore xaqiqa nan la ko tuddee gis na vidéo yi mu def yépp ci taw événement yi li mu jële ci kilifaam itam te mooy seydinal imaam almahdi lam ko yóbbante te mu jaarale ko ci siitam man dañ ma yónnee vidéo bi rekk ma xool ko bi ñu ci waxtaanee am beneen responsable bu ma wax ni man day gént naa lu nga xam ne sorewul ak li moor ma ni ko ci lu mel na mu ne ma dama gént mu mel ni asamaan si dañ ko wàcce ba mu tolloog boppu nit ñi ni ma gis géej gi mu daw dawa dawa daw ba sore li ci ëpp yëpp nekk plage mu ni ma gis la yow yaa ngay doxantu ci plage bi nicht tut. ma gis Seydina Imam muy jóge moom it delloo ko côté mu ni muy ñëw yow it ngay dem bi ngeen ñëwee bay daje nee na mu jël loxo mu lëng la bi mu la lëngee nag sëgg sëgg na am lu mu la deey waaye la mu la deey nag yéen ñaar rekk xam mbokk mi ne ma kon nag loolu moor wax am na firnde waaye fekk na loolu góor gi waxoon ci seen daairatul ixaata te mooy kilifa gu ne ñu may la nga def sa tariqa bopp waaye ba ñu ci jógee nag yonent bi ñaan leen ñoom ñooñu ñu def benn tariqa bu nga xam ne ñoom ñooñu yëpp ñoom chef yi ñoo koy bokk di fa dajeek yonent bi di waxtaane mbiru jullit yi mu ni waaye di fa toog gis benn kilifa bu tudd njaboot bu bokk ci beneen kilifa ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diw de te njabootu keneen la diw de bu ma sañoon ñu defal ko shahada te du njabootam moom njabootu beneen kilifa la mu ni yonent bi bu ma sañoon nga defal ko shahada yonent bi ni d'accord ñu indi mu daal di bind pour defal kooku shahada waaw mu lay xamal ni kenn ku ne man nga gëm la nga gëm bokk fa nga bokk te du tere bu la yàlla wanee leneen feneen bu ci sa xaqiqa yeggee nga nangu ko ni ngay nangoo sa kilifa waaw saddaqtu kulla waliyillaahi raaciyan qadrahum bi ayni ixtiraabi du Maodo ko waxoon waaw ni ku yàlla am ñu di la tudde waliyoo nangul naa la sa cër te maa lay ormaal ndax li la yàlla sédd loolu mooy tax du tere ku lu sut nga ne ko njool mi laylatul qadr kon xayru min alfi shahra waaw bu fekke ni benn guddi bi moo gën junney weer kon mën nañu gëm ni yonent bi moo gën junney yonent mën nañu gëm itam ni alquran benn téere bi moo gën junney téere moo xam yu jëkk ya la moo xam yu mujj yi wal fajr wa layaalin ashr wa shafi wal witr wal layli idaa yasri waaw hal fi dalika qasamun li di xijra doon naa jéem a déglu fan yi sax firikat yi ndax ma jàngee ci ñoom firi bi waaye dégguma lu ma xam waaw ku nekk ak façon ba muy waxee nekk sunu borom mooy géej wal fajr maa ngi giñ ci fajar ji nga xam ni ca la jant di tàggoo yóbbale ak penku fas yéene di fenke soowu bis bu jant demee ba tàggoog penku dootu fa fenke lu dul di fenke ci soowu nag bu ko defee nga xam ni àdduna jël nay bagage pour dem wa layaalin ashr maa ngi giñ ca bés ba nga xam ni fukki yëg-yëgu nit danañu sangoo lëndëm ci biir bàmmeel fukki yëg-yëgu nit mooy cinq sens yi ak cinq ya mu àndal xool gis noppu déglu bakkan xeeñu xet làmmiñ saf macc mu saf waaw loxo làmb daj fukk yooyu yépp bés dana ñëw yépp na teg ci biir lëndëmu bàmmeel dara du yëngu waaw yàlla giñaat ci boobu giñaat ñetteel bi wa shafai maa ngi giñ ca guddi ga roox bi di gunge yaram bi te di ko ñeewant ba ñu yegg ci buntu bàmmeel mu bàyyi ko fa soog a dem moom rekk wal witri soog a ñëw nag wa layli ida yasri waaw maa ngi giñ ca fajar ja nga xam ni guddi àdduna dana commencé di yoxoosu bëccëgu àllaaxira di jël place am waaw yàlla nee maa ngi giñ ci yéen ma di leen laaj ndax jar na ko hal fi dalika qasamun li di xijr alam tara kayfa faala rabbuka bi aad jox la exemple yi irama dati limaad allati lam yuxlaq mithluha fi lbilad wa thamuda alladina jaabu alsoxra bilwaad wa firawna di lawtaad alladina taxaw fi lbilad فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب kon nag inna rabbaka la bil mirsaad mais boobu neexul xamuloo bi neex mooy la ma leen wax ca meeting de clôture ba fa amal insaan إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني daa di bàkku te fekk bàkku teel na wa amma ida ma btalaahu fa qaddara alayhi risqahu fa yaqulu rabbi ahanani daa di saalit te fekk saalit teel na yàlla ni leen këlla bakku teel na saali teel na da ngeen a seen occasion waaw ñu ni ko occasion yi yan la mu ne la al orphelin bi amatul ndey amatul bàyyi lañ ko bàyyil mu war koo dundal nga wuti pexe pour féetale ko sa bopp taakuluuna turaasa aklan lamman miskin bi amul kàttan nga war koo fekk fa mu nekk dolli ko kàttan nga fekk alal ja nga ko war a kàttanale nga buub ko yëpp yóbbu sa kër wa tuhibuuna almala xubban jamman kalla ida dukkat alardu dakkan dakkan wa jaa rabbuka walmalaku safan safan bu boobaa les sept sages conseil constitutionnel mooy wa jaa almalaku safan safan waji'a yawmaidin bi jahannam ñu indi recalé yépp yawmaidin yatadakkaru al insan wa anna lahu dhikra yaqulu ya laytani qaddamtu li xayaati ak a neexoon ma teel a wut parrainage فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد kon nag yaa ayyatuha nafsul mutmainna horizontalité bi daal di ñëw xaw ma nag ndax pilotage assisté lay doon wala déet c'est très important góor gi moo ko jàngaloon xale yi waaw waaw est-ce que horizontalité bi lay doon waaw wala proximité bi lay doon parce que bu fekkee ni horizontalité bi la te comme d'accord na ci pilotage assisté lay doon donc foog mu am pilot ak copilote te bu booba ak zaman wal lu temps et l'espace ñooy nekk pilote beeg copilote bi te ñoom ñaar duñu juboo moo tax yàlla daf lay ñaan nga bàyyi fi yooyu yëpp jël proximité bi dem jël an nafsul mutmainna mu nekk avion sans pilote nga xam ni bu ñu programmé mémoire am rek ni ko irjii ila rabbiki radiyatan mardiya avion bi di nga ci dugg mooy piloté boppam yóbbu la ba benn escale nga ni lu may def fii ñu ni yàlla moo ni nañu leen dajale waaw yéen yi nga xam ni validé nañu seen candidature yàlla moo ni naa leen dajale fii ndax fokk mu gis leen bala ngeen di dugg aljanna kon nag fatxuli fi ibaadi ndax partage bi partage de connexion bi waaw ñu wara a duggante foofu ku ne xam sa moroom ñu def partage ci seen biir waaw buñ ko defee ba noppi nag yàlla ne ah sonn ngeen waaw ndax yawma nasuuqul muttaqiina ila arrahmani wafdan waaw comme sonn ngeen nag ah, ñu yóbbu leen ci village de vacances kon nag wat xuli jannati moo tax j'ai bien aimé damay jàng moom mii ci ñi may jàngal la bokk waaw <laughs> tabarakallahu bu ko defee rek xam naa moom njàng mi du sore trop benn baat ñaari baat ñetti baat rek ah. ñu di ko bége di xam lu ci nekk rekk li muy jariñ lan la yonent bi sallallahu alayhi wa dafa fatu bis ne que leen fàttu rek alquran ñoo fëgg ko mu jóg ubbi muy alquran mu ne ko lu xew mu ne ko dama lay indil séet ko seetu lan mu ni ko guddi la tudd guddi guddi rek la tudd waaw ah, yonent bi daal Quraan comme seet bi daf ma bett te jotuma ko toggal reer loo defe ni moom laa ko war a wutal reer mun ko war a tileel qur'aana tartiila kon na qumil leyl illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi ورتل القرآن ترتيلا waaw looloo tax ngeen seetloo ci gàmmu yële passé ma di leen wax ni guddi yi ñoo tudd yëpp ci wàllu diine guddi yëpp dañu yàkkamti woon guddi juddu yonent bi ñëw ndax itam ci la yége seen bopp waaw ci la ñuy amee itam mën a marché ci règle yu bees yi tëdd parce que yàlla yi mu bind yépp dañuy changer vingt quatre heures sur changement yooyu moo tax booy seetlu gis nga boo demee Grande-Bretagne nga dem Londres dem ci palais royal ba am na fa ku nga xam ni liggéeyam ci palais bi yëpp mooy horloge yi nekk ci biir palais bi horloge bu ne dina ci ñëw ci yow seet ndax am nga retardu une minute wala am nga avance une minute mu delloo la ci waxtu bi normal mu tax mag ñi yu am benn orloge horloge bi boo ko xoolee amul chiffre amul aiguille lan mu nekk ci horloge bi muy inna saata la aatiyatun laa rayba fiha walakin akthar annaasi laa yuminuun amee na jëmmu montre mais waxtu wi mu lay yëgal newul ci montre bi te yàlla nee na mu ngi ci yoon wi di ñëw mais li lay jaaxal mooy aaya bi boo ko déchiffré ñaar fukki xarab la ak ñeent mu représenté vingt quatre heures yi nga xam ni kon defuñu ko ci hasard waaw waaw inna la aatiyatun la rayba fiha walakin akthara annaasi laa yuminuun loolu mooy tax nag noonu kooku di am yitte pour horloge du am retard du am avance yi yàlla bind ci yow noon noonu la ñu war ku am yitte muy roox bi muy nafs bi muy qalb bi muy jism bi ku leen di dimbale ba du ñu am ni retard ni avance bu ko defee nag ci ngay gisee natt ba ci yonent bi waaw illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi ngay seet rek waaw ni retard ni avance wa rattilil qur'ana tartilan waaw bu ko defee nag ci lu bokkul na ak wa shafi wal witr bële mu giñee alquran fëggati ko beneen guddi mu ni waaw lu xew mu ne ko indil naa la beneen séet bu gën a màgg bu ànd ak rakkam mu ne ko nu ñu tudd mu ne ko mag ji al shafaa la tudd rakk ji al witre la tudd loolooy tax comme bëccëg bi dañu dañ ko may presque am na ñaari julli boppam te mooy tisbaar ak tàkkusaan mais séddoo na ak suba gi séddoo na ak timis kon guddi gi lu muy am loolu tax ñu jox ko chef ak mu récompenser li mu perdre waaw waaw yu sew sewaan yooyu ci wàllu tawil hadi bi bukratiha hadi bi harratiha hadi bi humratiha hadi bi wustaha hadi bi dhulmatiha إذ يسكنون لها أكرم بظلمتها أكرم بسكناها waaw bu ko defee kon nag tawil boobu nga bàyyi fa iqra dem ci àllama alquran mooy indi la ma leen waxoon kër jëmb alsawmu an alqiraati walmutalaa boo ca tolloo lecture da koy woor lu too jàng téere ndax daf lay tardeel téere daf lay tardeel waaw ndax li ngay seet leneen la waaw looloo tax rekk ñun nag jotu ñu am chance da léeg nga gis ci seen documentaire yi ngeen di def ñu naan la sëriñ Babacar diw ak diw ak diw ak diw ñoo nekkoon ay sëriñu daaraam di la wax ku mel ni Seyid Cheikh di la tuddal ñoom sëriñ Alioune Guèye di tudd ñoom Serigne Cheybatu mag ñu baax ñoo ñëpp ñu di leen tudd ku ci nekk ak bind ba daan tëralal mais ñun ñun lan mooy sunu chance ñun ndax dañu tase kër gi toll ci faydu mag ñi kenn fa nekk ku la mën a tëralal bind daf lay tëralal bind mais du la jàngal mooy oustaz Ousseynou Dieng te wax na ma ko bés fekk boobu dafa am ay nit ñuy sow ci Tiwaawoon di wax ne mag Mansour dañu ñëw Dakar pour pour noos man nag ma bëgg ko tontu te tontu ba du nekk xuloo sama livre bi ma njëkk a bindee ma ñëw fekk ko ci kanamu kooku ma jox ko livre bi mu ni ma lii nag ma ni ko mbaa ko bind bi mu liiree muqaddima bi ba noppi daal di sigg xool ma ni ma nga defe ni lii maa ko jàngal ma ni ko ah yaa xam de mu ne ma xanaa sant yàlla ba tax na kon loo tax sunu xam-xam sorewul waaw dañuy liifantu rek dama bëgg rek léeg-léeg di ma yóbbaale may jéem dabaatal tuuti waaw ndax yëf yi génération bi ñëw ko moom waaw di sant yàlla bu baax wax naa leen dama amul woon jot moo tax mënuma woon bind dara ma jéem fortaatu rekk ñëw li ma mën a wax ak as néew ma wax ko waaye dama am ay wëllëre tey la ma sa am ma tudd leen Serigne Habib Sy bu maam Abdoul Aziz Sy tey faral di nekk aynu madi def di sama wóllëre bu amul morom te ñi ko xam ci kër gi barewul dinañuy faral di échanger yu bari mag moom daf may faral di wax nii coono bi may daj ci jàng sëriñ Cheikh coono bu ni toll lay daj pour jàng loo wax ma ne ko def di mbaaxu mag ñi rekk waaye dañu bàyyente xel ñun ñaar ndax ñaari yëf bu jëkk bi mooy langage de vérité bi bu ñaareel bi mooy franc parler bi waaw Habib ku ñëwee dëgg la waaw te li muy waxit du ko làmbaatu waaw xam naa looloo tax yàlla xiir kenn ku nekk ci ñun ñaar ca ka des ñuy def échange bu mel noonu xanaa dafa bari ñuy soow nan ñun dañu beru rekk sunu bopp rekk lañu fale te fekk njuumte la waaw Modou Fata Sarr ñëw seet si ma oustaz Cheikh mii moo ko indi ñuy waxtaan ma ni ko du Fata mu ne ah ma ni ko est-ce que xam nga lenn mu ne ah ma ni ko ku naw cheikh bu sëriñ Mansour la ma ni ko ñaar moo tax ma naw ko bu jëkk bi mooy nit ku teey la bu ñaareel bi mooy xumb-xumb yi doomu sëriñ yii di bëgg gis naa ni bëggu ko yi moo tax mu neex ma mu ni ma jar na mu xam ko nag man ko bàcce des man ko ki ñoo wax sëriñ Babacar Sy Abdou nga ñu gën ko miin ci njool Fuuta waaw ma ni ko ku ma neex la ndax moom it langage de vérité ak franc parler bi ci des mooy ci wàllu jol ku simple la waaw mu ne ma baax na nag ñoo xam ko pour wax la nit ñee xamul lu xew rekk mais liy dox a ngi dox ma toog fan yii xalifa Sarr bii yóbbante ni ma wax leen ko ni ko waaw waaw déedéet du xalifa Sarr boobu mu ngi ñëw Pape Cheikh Sarr bii mu yónni Cheikh ni ko waxal góor gi ni ko soxna Umu Xayri bu Sëriñ Mansour mu ma yóbbante ci moom nee na nga waxal ko Sëriñ Moustapha ni ko mu ngi koy nuyu te mu ngi koy ñaanal yàlla lu mu man te mu ngi koy sant ci taxawaayam waaw ndax taxawaay bi mu am ci kër gi bu ko ñëpp amoon kon kër gi dem na feneen waaw ummu bu sëriñ Mansour moo ko yóbbante Pape Cheikh Sarr bii fan yi passé matagul sax weer ma toog tuuti xalifa Sarr bii ñëw yóbbante cheikh ni ko waxal sëriñ ni ko ba jënam umu xayri bu maam Abdou Aziz nee na mu koy nuyu te mu koy bàyyi xel te mun koy ñaanal la mu daan def sax di teew ci jataay yi yaramam moo ko mayatul waaye bu sañoon fu mu toog mu toog fa waaw ma ne ah, waaw kon lu des waaw rawatina nag sunu bàjjen yaay sufi moom ñëpp ko tane day day jooy rek waaw day jooy rek njabootam yëpp daf leen xiirtal ci ban rawatina abdurrahman abdurrahman Touré ak soxnaam waaw wa day ñaan day ñaan ba am na ci bu nga xam ne yàggul sëriñ Mansour Sarr a ko fekke waaw lu ne ñaan na ko waaw man dafa ne kon nag yi nit ñi di wax lan la hmm? boo xamul rek danga naan xamuloo waaw boo xamul xamuloo guddi gu ne bala may tëdd dinaa déglu sàmbuub dinaa déglu Doudou Kane dinaa déglu Pape Malick ak Cheikh Tidiane waaye dinaa déglu sama doom bu ndaw bi bu ñoo tudd bay bay nañ ma ko protéger waaw ñii kat taxawu nañu héritage yu mbay dondo moo tax ma bàyyi leen xel waaw li ma leen di ñaan rekk ba ci sàmbu na bàyyi xaaju kenn du yore rajo ba noppi di xaaju waaw bu ñaareel bi mooy bu muy wàcc trajectoire am parce que mag ñi seen way ba wàccee sa trajectoire rekk dafay am lu mu rax te seen mbir dafa sérieux bu ko defee kon nag waaw ñu war a xam ni bokk dugal naa ñépp ci sama biir waaw waaw dëgg la nag duma taxawaalu dëgg la itam duma ñàkk fayda invitation bu nekk dinaa ko jot ma seet ku ma wóor ni mën na dem ci sama place ma wax oustaz Cheikh mi ni leen def leen délégation sàngam ñu dem teewal ma nit ñu bari bu ñu sañoon yaay ñëw mo waaye doo dem di yàq yëfu jàmbur ndax Pape Malick Mbay daf ma ni sëriñ bi bu ma sañoon moo am léeg-léeg yenn àjjuma rek nga ñëw jullee si jumaa ja ma ne ko ma yàq jumaay jàmbur c'est très important yow koo xam ne boo jullu see jumaa ji yëpp yëpp yàqu sa dem juma xaram na ndax ku ne dana jóg fa mu ne bëgg laa ñëw fekk fi nga ne nuyu la ko fee def boobu ci jumaa ji te yàlla rekk fa war a yóbbu nit ñi moo tax rekk yu bari ci tahwil mooy tax dana bari lu war a mën a nekk waaye ñu di ko daw ngir am lu ñu sédd rekk waaw bu ko defee kon nag di ko xamee noonu dafay baax ñuy sant ñëpp ah ci bëccëg Haji Maxtaar dafa yóbbante di laaj ndax waxtaan wi war nañ ko def en direct ndax dafa am ci chaîne télévision yi ñu doon ñaan pour def synchronisation ñoo ko moom moom mooy patron bi ci wàllu googu donc lu mu ca tëral rek man lu ma cay déranger nekku ci seulement lu tax nit ñi sawar léegi ci sama waxtaan ku ne la nga war a dégg dégg nga ko waaw bu ko defee kon nag ñu ngay sant ñëpp ñu ngay gërëm ñépp dama xaw soj nag loo tax sax waxtaan wi ni mu waroon a gudde guddewu ko ah di leen ñaanal yàlla rekk yàlla xam na ni duma xam sax lu ma yendoo ndax di xool njaboot gi minute bu ne ma jóg taxaw ci fenêtre bi xool njaboot gi ci tant bi xool ñi ci mbedd mi di leen ñeewant waaw léeg-léeg ma dem ci ba ci yàgg ma ne ah xam naa ne dama waroon a woo capitaine rek mu ñëw ñëwaat ci benn yoon waaw ndax yërëm njaboot gi rek ndeysaan waaw am na ñoo xam midi midi fekk na leen ñu toog ci tànt bi ndax bañ a ñàkk place waaw jëm jëm ci guddi gi ci ku waaw waaye tabaarakallahu lu mu leen jaral rek jaral nañu ko yàlla xam na ko waaw dañuy bañ rekk perturbation waaw waaye ñuy mujj rekk di féetewoo ñaan ba bi heure dog bi di jot maa ngi sëpp ci fenêtre bi di tooñ séeréer si waaw leen tooñ tooñu tukkulóor rek séeréer waaw ma am na ñoo xam ne di yàkkaar yàkk yàkkamti woon nañu ñu nodd waaw gaawantu tàndarma yi nangam nangam ma waaye ba tey baax na waaw la góor gi doon nettali ca nu mbokk séeréer ba ba muy soog a tuub te taseeg koor te mu dog rek ñu ni ko ay ca jàkka ja mu dem ca jàkka ja ñuy sëgg ka siggi rek ci naafila nee na bi mu sëlmalee daldi woo doom ji fekk mu ci biir sàppe si mu ni ko dem demal woo sa yaay mu ne ko ma wax ko lan mu ni ko nee ko mu ñëw ndax fii la ñuy jóge dem aljanna waaw <laughs> ndax naafila yu bare waaw ndeysaan waaye fekk na ku nekk ak la nga yéene ku nekk ak la nga yéene yàlla waaye dafay am lu nga xam ni ku nekk danga koy négocier bala nga cay yegg Maodo Seydil Hadj Malick radiyallahu anhu négocier nañu lépp kon ku tardé rek ci yow la waaw du dëgg allahu xasbi liman bi suui kaada bina hmm? kadaaka inda mamaati xasbi allahu du dëgg hmm? wa inda masalati fi lqabri da faraqin lima qtaraftu dunuban xasbiya allahu wa indama nusiba almisanu maadilatan arju nabiya alhuda qul xasbiya allahu lu dëgg allahu xasbi ida mudda siraatu ala matni jahannama maddan xasbiya allahu dafa ngeen ni lii ku dëkk di ko ñaan bis bu ne nu la yàllay def hmm? fokk yàlla am moom it lu mu nangu waaw moo tax ñoom kenn mënu leen fay waaw xanaa di ñaan yàlla di yokk seen leer di yokk seen barke yàlla gën di yaatal seen mission ba fu mu war a yegg mu yegg fa loolu daal la amoon ci lu ñoo sant wax leen ko mag ñu baax ñi fi ñëw te Oustaz Cheikh tudd leen ñoom ñépp nag waaw kenn ku ne waa jaamal ak ñu jëkk dëkk Jurbel waa kër Magay Njareeg ñëpp kenn ku ci nekk fii seen kër la ñoo ko moom tabarakallahu sëriñ Mor Njaay xaqiqa mu di limaamu lay de sëriñam it sédd nañu ci boppam lu jar ñu tudd ko sant ko waaw mu dee Cheikh Ahmed Tidiane Diop bu Maktoum Buruut waaw ndigam ña ca wala ndoowa daanu ca teen ba masaak ña ca bind ba waaw wa tabarakallahu jàmbar la waaw bu ko defee rek nag sunu mbokk Mansour Diop tabaarakallaahu maa ngi koy yóbbante sax ci Pape Alé fekk ci information yi rek ni ngay dégg ñu am nu ñu waxe te fekk na ndekete demewul noonu waaw ba ma yóbbante ko ci Pape Alé waaye tabaarakallaahu bu demee neneen it waaw honneur baa ngi fi ñu di leen ñaanal yàlla mu mel ni nag sama mbokku séeréer bi waaw Bachir Diomaye Faye waaw mook sama mbokku Casamance bi Ousmane Sonko waaw ñoom la yàlla dogal ñu nekk tey ci kanamu réew mi kon nag li ñuy def rek mooy ñaanal leen yàlla yàlla tette leen ba ñu mën a tegaat réew mi ci fiñ ko war a te Sénégal rek yàlla ruus mag ñi fi tëdd ba may leen jàmm may leen sutura may leen tawfiq incha allah loolu rek moo nekkoon kàddu yi bu gàttee it xëy na beneen yoon mu gudd ci marché wulitam itam wala sunu xam-xam yàggu ca yéen asatid yi xanaa bu oustaz Modou Fall jógee bopp mook oustaz Cheikh waaw ak imam Samba Diop tabarakallahu ñoom Oustaz Malick ànd ak seen responsable yu baax yi sunu collège yu père yeeg collège yu mère yeeg commission féminine yeeg dem ba ci sunu cadet yi Moustarchidine yi waaw tabarakallahu sant ñëpp waa parti bi itam seen parti la ñun dañ leen di gunge rek tabarakallahu ah maa leen ko propose te teguma ko ci caaxaan te li ko yàlla yéene mu ngi ci yoon di ñëw incha allah bokk yu baax yi di ko gunge imam Cheikh Mbeng imam Moussa Gueye ak imam Cheikh ñan ñoom ñëpp ku nekk ci sa façon sunu mbokk Abdul Wahab Sakho moom itam ci biir taxawaay bi tudd nañu sunu way juru bopp bi xaaji Habib Gueye waaw muy baayoo xale yi di leen ñaanal di leen gunge keroog bi ma ko gisee mu sol t-shirtam ak casquette waaw ma ni lii di man rek maa ko ko jaral waaw waaw wa tabarakallahu ndeysaan di ñaan rek di ñaan di ñaan di loolu rek nag moo ñu fi bay bu ko defee kon nag soxna umul xayr li fi ne yëpp moom mooy taaw taxawaay ba mu ca war a def it bi ñoom Alioune demee pikin la ko fa war def na ko fa te Alioune rendre na ma compte kontaan lool ñoom soxna Fatima ak ñoom yaay ci niveau femme dévouée li ñu man def nañ ko fii pour jàppale ko Alioune mu mel ni kenn ku nekk façon ba nga mëne def nga ko tabaarakallaahu cheikh bërki démb wala démb sax la mujj ñëw kër ga jox cheikh Sarr enveloppe bi def résultat élection yi waaw fa tabaarakallaahu da ngay bàyyi noonu ndax bu doon affaire politicien rek la kon mën na deme neneen waaye itam du affaire politicien dafa bokk ci sunu tarbiya waaw bu ko defee kon nag pur man moom ma ko Alioune Dia ko cheikh mbeng moomu ko cheikh yu moomu ko ñoom ñi ñoom capitaine mii ñoo ko moom seen ay mu ngi ñëw waaw kon nag ñu di leen ñaanal yàlla yàlla may leen gudd fan may leen wér may leen tawfiq ba li ñu bëgg a réaliser yëpp ñu réaliser ko ci baaxu mag ñi incha allah kon xanaa ku nekk bokk gannaaw bu ñu joxee capitaine mu tëj joxe ñaan ñu ñaanalante bu ko defee yeewante rek ba yàlla mayeetu ñu daje du yàgg ndax ñoom ñu ngi commencé seen programme ci korité gi luñ leen mën a gungee nag ñu gungee leen ko waaw te ñaanal leen yàlla incha allah kon nag góor gi nga mottali baat yi rek te joxe ñaan ñu leen ñaanalante incha allah tegati mooy lu si nit di tegati man de lenn rek laa ci mën a teg xëy na dana xaw niru bu ma ko sañee wax baatu fayo ndax am na yoo fi tudd sànq waaye am am na baat boo tuddoon ci daje bi mu doon def irshad li nga jëloon ci daara Serigne Cheikh mm-hmm. li nga ci amoon joxe nga ko mm-hmm. waaye man na mm-hmm. ko wax ba pare sama xol tàng donc wax pare sama xol tàng ci waxin xaw ma yéen de waaye man soxla ma daaray Serigne Cheikh sa daara laa soxla ndax xam naa ni man daara Serigne Cheikh du ma jëriñ sa daara may jëriñ kon nag si teel naa joxe sama inscription du tey sax waaye daa lu may seede ndax ñoom it ñu xam ni seen wàll la du problème maa leen di yóbbaale rek tarbiye yitte la yitte la boo leen deful seen yitte sama yitte du yóbbaale seen bos man nag joxe naa sama inscription yéen a ci des kon nag si yaakaar naa loolu doy na yàlla yàlla di xeeb di dolli te buy xeeb na ko xeeb ci suñu tuutiwaay waaye buy dolli na dolli ci moom màggam ci mbaaxam ak ci barke mag ñu ñu yaakaar kon nag ah ñu jànga ñaan bi defaat fatiha bi juróom ñetti xurayshi falaxe ak naas bi ayatul kursi yi salaatul ci barke guddi gi ak ci barke weer wi yàlla yàlla faj aajo yëpp yal na yàlla wéral cër yëpp yal yàlla ubbi bunt yëpp te nëbb safaan yëpp ci mbaaxam ak ci barkeem mag ñuy yaakaar bismillah Euh, mu mel ni téléspectateur Mourchid TV ànd ak internaute éveil comme niñ ko defee woon rek ci njëlbeen bi ànd kook suñu kilifa Serigne Mouhamadul Moustapha Sy mu ñëw ak ñun tey encore ci thème waaye tamit ci jàngale bi nga xamante ni jot na ko jël jagleel ko njaboot gi ak mbooleem kuy euh, déglu enseignement woo moo xam nga jaarale ko Mourchid wala nga jaarale ko éveil ak fu mu mënti doon Serigne Mouhamadul Moustapha Sy indiwaat na encore. leneen bind boo xamante ni ci Aliou daanaka gaawul nga di ko gis ci ndaje yu ni mel ci ndajeem rek nga ko mën a amee ak ni ci àndeek maam Cheikh Ahmed Tidiane si al capitaine ci anam bi nga xamante ne moom tamit noonu la ñëwee tëj ko te wax ne daaraam moo ko ñor te loolu rek ça tuut tout daara kilifa gi moo ñor maam Cheikh Ahmed Tidiane si capitaine comme ni ko waxee Pape Mor bi. mooy xam-xam du fi manqué xam na yal def ñu doylu ko yal na yàlla def ñu jariñoo ko yal na yàlla def ñu muurloo ko incha allah di sant yàlla bu baax a baax ci laylatul qadr bi lépp lu ci def comme ñaan moom ki gi ñaan na ko yal na yàlla mottali yéene incha allah en tout cas lu lépp woyof na te dara diisul woon lépp woyof na xol yi bég nañ euh, jëmm yi kontaan nañ yal na yàlla mottali incha allah. bàyyi ko sunu kanam lu yàgg a yàgg am na koo xam ne sagal Sénégal la sagal àdduna bi la sagal na Sénégal sagal na àdduna wax dëgg yàlla da nga koy dégg rek wallaahi da ngay da ngay gën a kontaan yal na yàlla moo tali incha allah wax dëgg yàlla kontaan nañ trop di remercier